voilà ñëwoon fii tey ci liggéey bi ci ndigalul mun Mountakha bi nga xam ne da koo joxe ngir yaatal mbedd corniche bi muy liggéey boo xam ne ñun nag amuñu ci commentaire parce que ay murit lañ ndigal moom jëfe bi ndigal li tàbbee dañu am contentement bu baax a baax a baax ngir tàbbi ci liggéey bi liggéey boo xam ne amul benn jafe-jafe suñu mbokki Baye Fall yi te ñun ñëpp it ay Baye Fall ñu ñëw tàbbi ci liggéey bi di ko def yaa ngi gis ni mu amee solo nii xanaa lu ñu def lu dul interpeller suñu mbokk taalibe yi voilà ñu jéem a jëfe li parce que lii danaan faral di am waaye suivi dañ daan gis bu jàllee bu matee un mois deux mois da ngay gis mbokki taalibe dañuy jëlaat seen i bagage lañ doon tere ci opération bi ñu di ko indiwaat ñu leen di interpeller ñoom ñëpp leen digal li wax dëgg fa yàlla nañ dimbali nit ñi dimbali sëriñ bi ci bëggam bi ci dëkk bi bu ko defee li bëgg ci dëkkam bi bu amee ñaari weer wala ñetti weer ñu bañ ko fee defaat di interpeller waale aussi le président de la république boo gisee bi ni ko defaree nii war na war na cee mën a jàpp bu baax maanaam indiwaat deux voies yi nga xam ne fii nii boo xoolee ni ko yaatalee loolu logique la fi ñu ci woo le président de la république du ko ci interpellé mu jàpp ci bu baax ci corniche bi Touba. corniche bi bi moo ëmb Touba boo nee corniche bi mooy Touba boo xoolee yaa ngi jàkkaarloo université bi donc maanaam yoon wi day yoon am solo woo xam ne ci dëkk bi laaj na président de la république dugal ci loxoom bu baax bu ko defee man ñoo dimbali ci yoon wi ñun en tout cas réveillon ñi ngi ko ci interpellé bu baax mu def ci devoir. nekk fii ci ndigalal Serigne Mountakha Serigne Touba li nga xam ne moo jox ndigal Serigne Amdi Fall Modou Mbenda di xalif général des Baye Fall. ngir mu euh, yaatal euh, corniche bi euh, ak yeneen liggéey yoo xam ne sax war nañ koo yaatal ci dëkk bi tey nag ñu xëyoon ci ci jëwrinam njabootu sëñ Modou Aminta defaal gépp njabootu sëñ Modou Moussa Fall gépp ak Baye Fall yëpp nag waaw waa waat sëñ Modou Menda ñoom ñëpp ñëw nañ Baye Fall yëpp ñëw nañ Cheikh yëpp ñëw nañ ndax ñoom seen ak bëgg moom mooy bëgg ak sëriñ bi bu sëñ bi xasee joxe ndigal rek ñoom moom jëfe ndigal sëñ bi rek moom mooy seen yitte ndax xam nañ ne ñoom amul ñu génn bëgg guñu lu sëñ Tuubaa bëgg kon Cheikh Rafal moom lépp loo xam sëñ Tuubaa bëgg na ko dana ko jëfe na mu ko bëggee ak nu mu ko mën a jëfe nag ndax loolu la àndee war ak moom kon loolu loolu mooy ndigal li. commencé ngeen ko ci waaw commencé nañ ko ci garage Dakar bi corniche bi wër koo wër ba dellusiwaat foofu ci poste contrôle bi nga xam ne corniche bi yëpp dañ koy wër li euh, li seq bi euh, lépp loo xam ne nekk na fa rek te nga xam ne day xatal euh, yoon yi. dañ koy dindi incha allah ba mu set wecc kon daal loolu mooy nga xam ne nii moom la sëñ bi santaane ak yeneen ndigal yoo xam ne buñ ci tollee incha allah danañ leen ko wax waaye ndigal li ëpp na loolu gën a amul jafe-jafe ndaxte ñun ñëpp ay taalibe lañ ndax damay wax ne képp koo xam ne yaakaar na Serigne Touba ndigal li ci nga bokk ndax yaakaar Serigne Touba moo di Baye Fall kon ñun ñëpp ay Baye faal lan euh, bari na ci ñoo xam ne sax ñoom ñoo dindi euh, li nga xam ne nii war na ko faa jëlee ñoom ñoo ko dindi laata ñuy ñëw moo tax daanaka amul jafe-jafe li ci ëpp sax garab yi li ëpp loo xam ne ñu ngi koy dindi waaye yàquñu dara ñu dara ndax ndigal li xam ne ne ñoo ko bokk te xam ne ne ndigal sëriñ bi képp ku ko jëfee di nga ci am ni nga bëgg ndax dañ képp koo xam ne yaa ngi sax ci ndigal dun la dugal te dun la mbugal dun la dugal dun la mbugal kon loolu mooy li nga xam ne moom mooy bëgg a sëñ bi te sëñ bi lépp loo xam ne mu ngi ñu koy digal rek sunu njariñ la àdduna ak alaaxira kon loolu rek la te dëkk bi nag nañ xam ne kër jàmbur la